an ibni shihabin jëlee ci ibni shihab ann rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yonentu sallallahu alayhi wa sallam bacata abdallahi bna xudafata ayaaman min ci bés yi minan mooy buñ jullee bés ya ca topp muy wër nit ñi nekk minan di leen wax ne innama hiya bés yile innama hiya naka bés yile ayyaamu aklin bési lekk lañu wa shurbin basi naan lañu wa dhikrillahi basi tudd yàlla lañu kon du koor boo bëggee yiw lekkal naanal waaye buñ la yóbboo lottu ci tudd yàlla na néew ndax nga mën a bari tudd yàlla tabaraka wa taala ndax basi tudd yàlla ñu jaamu te boole ñu baal suñuy rëcc rëcc bi barakati mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hada wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu lii xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy diine dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten ayleen ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag suñ xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag ji ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla imam Mountakha Sakho bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee lañu ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bug ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne ni tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da nga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam taxaa Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island